Karim dafa dem tay matin def ben live euh, place de l'indépendance il faisait 7h et quelques donc il a commencé à faire son live donc euh, di am lu ko metti Karim moom ñëpp xam nañ ko c'est un homme passionné c'est un amoureux du Sénégal wax dëgg yàlla mom moom ñu ko compte sax ko nangul donc euh, muy quelqu'un de très très engagé donc engagement fait de faire fay gaañ yi chaque fois mu ne ko yow gars dañ la xiif ñu lay donc euh, fais attention donc euh, machallah léegi nak tay man j'étais sank au commissariat central pour le donc euh, je l'ai vu ça. donc euh, waxtaan nañu sur beaucoup de choses donc d'abord li njëkk li grave, moi, d'abord euh na ma tey matin ba muy ba live parce que live bi euh, a commencé ça a grimpé il y avait plus de 600 gars qui ont suivi, les followers euh, à sa grande surprise ay monde qui donc euh, a a comprendre n'est-ce pas y a comprendre donc a à presque 20 mètres de lui fait que mon live

ba policier ñëw di ko jël si policier Sénégal yi boobu policier noir yi waaye mu ñëwee waa ji ko jàpp ba mu ñëwee balaa muy wax ak Karim dafa njëkk dem ci banc bi en face de lui presque euh, si tubaab yooyu mu dem taxaw foofu ay deux trois minutes wax ak tubaab yooyu n'est-ce pas wax ak ñoom wax ak ñoom après mu tourné euh, daal di ñëw ci Karim ba mu ñëw si moom. ne ko yow euh, lu tax nga taxaw fii di fi def euh, di fi di fi tourné xanaa xamoo ne fi ko fiy tere euh, Karim ne ko non sama est ce def violation ma xam naa gars yi live bi ils ont écouté les débuts de l' échange waaj ne ko fayal d' abord fayal sa kii bi ngay bi ngay defal fay ko policier bi ah donc Karim tamit à respecter l'ordre parce que waaj dafa génnee carte am woon ko ko moo xam ne kii policier la même bu dee il était en civil donc mu fay live am mu fay téléphone am.

donc Karim a compris euh, ci biir waxtaan bi parce que policier mu ngi waxtaan bàyyiwul xel sax Karim mu ngi waxtaan ak ñeneen di waxtaan ak yeneen kii mi leen noonu ñooñu suñu ay collègues la donc c' est là qu' il a compris que kon ñooñu c' est des policiers maanaam c' est des policiers français yu civils et qui sont là au Sénégal